marhaban bikum ginnaaw bu mu bàyyeekoo Tuuba ak Tiwaawoon moom président Jomaay Fay fa dem niki démb seeti ji chrétien yi monseigneur Benjamin Ndiaye jàngu bi waaye tamit niki démb ci ajjuma ji ma nga jullee jumaa ca Cerno Madaani Taal mu njaboot ak omarien yi ba tax laas yéen a kaay ne li ñuy wax opération de charme ci la nekk de réew mi yéen a kaay ne fa faa yëkkati kàddu nag ne fay fas yéene taxawu jàppale këru diine yi fii ma nekk nag di njaboot ak omarien yi Faye ba mu demee ca jàng ba monseigneur Benjamin Ndiaye président fa ko wax na ko Faye mottali liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci sanctuaire martial bu Popenguine libération moo ñu ko xamal les ko yu kaay ne li gën a rafet nag mooy président Diomaye Faye fa wax ne man Diomaye Faye rafetlu liggéeyu président Macky Sall bi mu def ci këru kilifa diine yëpp waaye du ma def lu ko gën a yées info yéen a kaay mel ni ku naan ko waa lu tax nga bëgg a taxaw këru kilifa diine yi président Diomaye mel wax na ko président jomaay ñun njaboot ak Omar yéen gii dal xam nañ mbégte ci ñëw gi nga ñëw julleeg ñun jumaa président Diomaye Faye bi mu demee ca jàng ba monseigneur Benjamin Ndiaye fa rafetlu taxawaayu jàng bi ci réewum Sénégal ci wàllu jàmm ak yeneen yi ni mel <laughs> leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Mansour Faye goro Macky Sall fa wax ne rapport OFNAC yi ñu dégg na fa génn ñu ma ciy tudd faa leen di waxal leen na man kenn musut maa woolu kenn musut maa déglu kenn musut maa enquête kon kay man kenn munut maa topp ci wàllu yoon informateur yéen a kaay mel ni ko naan ko <laughs> hee yow xam nga ci loo nekk fa ngay xàll yoon woo xam ne fa ngaa bëgg rëcc ci daaw le quotidien yéen a kaay mel ni ko naan ko hee yomb bu dee xam nga bi président Macky Sall nekkee moom kum neexut kenn du ko oolu ci yoon fa leen doon làq waaye léegi Serigne Bassirou Gueye ci boppam mi jiite OFNAC fa soppi doxalin rapport yu fa génn dafa ñuy topp ñu sàcc alalu askan bi le réveil yéen a kaay ne faa leen di wax général Moussa Fall lan moo tax président Diomaye Faye football ko kajj ko dàq ca bopp gendarmerie nationale ah, yaaw seetal ay ONG yu bëri fa ñoo def ay rapport wax ne Sénégal opposition bi ku jëg bi ñu fi amal ñaxtu takk der yi fañ leen doon fitnaal ak a méttital rawatina gendarmerie nationale te Moussa Fall moo ko jiite woon ñu ne waay fa bëri ay gendarme yoo xam ne fañ leen teg loxo xam gendarme yoo xam ne fañ leen a dàq kajji leen am gendarme yoo xam ne fañ leen jaarut yoon ñu ne déetawaay général Moussa Fall mii fañ koo plainte ay plainte yu bëri bitim réew te dàq giñ dàq général Moussa Fall njabootu ñi nga xam ne seeni doom fañ leen a ci ñaxtu yi fi amoon ñoom fa ñoo bëggoon loolu te loolu lañ doon sàkku si du quotidien ne rapportu OFNAC ak rapportu Cour des ci xaalisu corona bi niñ ko nar a lijjanti ko topp gi war a topp loolu yëpp fi mu nii mi ngi ci loxoy président Diomaye Faye fa war a jël ay responsabilité waa FMI yi ñu ngi ndakaaru wàllu subvention yi nag fay ragal des na ko waxtaanee de Dakar waa yéen a kaay na ko duñ fa yem de Sénégal fay présenté waa FMI yi prévision yi nga xam ne moo am ci PSE bi lanen lu leer ba yegg ca nañ ja moy ne keuru taskatu xibaar yu bëri manam hay radio ak télé fi mu toll nii bo moytu fa ñi tejj de daanu ndax jafe-jafe xaaliss mo len sonal ba tax le soleil yene kay na journaliste yu bëri fi mu fay ko ñu salaire de wala bok sen salaire fay retard tardé ndax seen directeur bañu leena fay sax way faño xamu xamul terewul nak xamna journaliste yo xamne ñi ngi tëkku na fa xamal geraw ndax mëna jot sen xaaliss Mamadou Ibra kan mo jité kurelu njitu taskatu xibaar yi ñi wax sedeps fa wax tay ci wal Fadjri yene kay ne gis nga buñu waxante deug keuru taskatu xibaar yi nek Sénégal fi mu toll nii ñi ngi ci ay jafe-jafe yu métti te boo moytuut fañuy daanu tëj lees ko yéen a kaay na faa leen di wax bu dee bi maison de la presse ndox ma fañ koo coupé compteur ba fañ koo yóbbu fa nga ne loolu jàmm la ngir jàmm am nag ci njàng meeg njàngale mi ñu suqali ko ak wàllu tàggatu gi xalaatu Cheikh mbaw mi jiite ko si deb ma nga ca 24 heures yéen a kaay lees ko yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne waa PS yi ña ngay waajal seen bopp xolof njaay fay wax ne soo xamut fa nga jëm fa ngay dellu fa nga bàyyeekoo Xalifa Sàll fi mu toll ni fa dellu ca PS gu njëkk ga ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn ña ngay xamal ndaje fi mu toll ni juboo ngir àndaat nekk benn waaye fa wax na tamit ndaw yi PS yi ñoo war a jiite fi mu toll ni PS paay màgget yi ñu nekk seen wet di leen xelal ñu bëree ngi joxe seen xel ak xalaat ci fal gi président Diomaye Faye fal Pape Alé ca RTS le public yéen kaay na fal kooku bëri na coow de su ko ñii rafetloo ne Pape Alé Niang fa ko mérité xam na ñeneen ñoo xam ne fa ñoo wax ne fa ñoo waroon def appel à la candidature ndax ñoom ñoo ko fi digge woon <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne tëli bi oto yi buñ ci waxut sénégalais fa ñoo nar a jeex de accident yi fa takkarnaasa fi mu toll nii ñiy dee ci tali bi fa ñoo jégg nga démb faa leen waxoon accident ba am ca Koungheul ba fukki doomu aadama ak ñeent faatu ca léegi tey faalan di wax yeneen ñaari accident benn accident ba ma nga xamee ca dingiraay ñetti doomu aadama fañ faatu ba tax laas yéen a kaay ne wax lañ ci tali fa ñuy jeexal de direct ne jëwriñ ji ñu dénk wàll wi nag El Malick Ndiaye fa ñuy jël ay dogal yu mag ngir jëlee fi accident yi wala mu wàññee sax vox populi ne accident ba amoon nag diggante Yamong ak Badianeen juróom-ñaari guinéen bokk a ay ger ak tappale boo xam ne gaañu fañ ko ci xamal turbine yéen kaay moom fa ñoo xamal ay garab per yoo xam ne baaxut njëgu ñeenti téeméeri million ak ñett douane bu Joal fa caa teg loxo ka ñu teg loxo nag ndax fa sàcc détourné fukki million ak ñeent ngir fajee ko doomam bu góor bu feebar soxna sa def loolu nag l'observateur moo ñu ko wax ba tey fa ñoo waxaat moom l'observateur na hôpital dalal xel di centre ba nekk ca Kaolack ndàngaam nga xam ne ñu seen xel mi manqué fa lañ leen yóbbu di leen faj te Ansoumana Dione jiite ko yéen kaay bi fa wax ne bëri na ñuñ fa yóbbu woon di leen faj léegi mujj nañoo wér bokk na ca Mamour Diop wér naa ba maa ngi waat ci nit ñi ak keneen ku ñuy wax moor ñing nee na man léegi wér naa bi ma génnee nag sama benn dëkkandoor bu jigéen fa maa séen rek na ma xay a yow dof bi moom kañ nga wér mbaa dof dina wér yee xam nga wax jooju rafetul li wér nag te wóor mooy ne xale yi jigéen yi fi mu toll ni xeesal bi ñu doon def xeeb nañ ay diwu ak ay gaam beneen xeesal bu bees lañ génnee muy pikiir bu garaaw boo xam ne boo ko pikiroo fa ngay weex tàll comme tubaab bés bi yéen a kaay waaye pikir boobu nag man pikiru dee ko tuddee ndax soxna suñ ko pikir ñaareel fa ngay dee fa ngay xam feebar bokk na ca cancer benn waay nee na man sama soxna ginnaaw bu mu pikiru pikiru xeesal bi moo ko rey mu dee benn jigéen nee na man faa pikiru pikiru xeesal bi far doxe fa am jabet enquête yéen kaay moom fa xëy xamal gëstu ci jëkkër ak jabar yi nga xam ne fa ñuy sëy te ñoo xam doom loolu ñaareel su amee rek jëkkër ja moo mënta xam doom docteur Nicolas Gakou ne góor ñi ñoo gën a exposé que jigéen ñi ci xayma nag 35 pour cent ci góor ñi la ñoo mënta am doom encore 35 pour cent ci jigéen ñi tamit ñoo mënta am doom ak 30 pour cent yoo xam ne leen tere am doom ca ñoom ñaar ñëpp la maanaam seen yooyu yéen a kaay bi ne sëy moom xamoo doom de métti la def bu dee jigéen ji moo mënta am doom jaasir wax ju ñaaw ju ne gaaru waale lu ne dana ko dégg ca biir kër ga bu dee góor ñi la moom ñoom fañuy bañ ne du ci ñoom soo waxee rek ñu ne ci sama jabar la te du nangoo dem hôpital seet seen bopp de te lu bëri ci ñàkk mën a xam doom ca góor ga la waaye góor ñooñu fa ñoo xamoon ne ku ci dem hôpital ñaareel mën nañ koo faj